Assalam ñu ngi leen di réunion entre nous siège bi délégation Ibrahim Gaye bi nga ADEPS di am contentement trop di leen recevoir réunion bi réunion bi nga préparation euh, Arbre de Noël édition 2023 édition troisième édition édition 2023 euh, li bi nga xale yi nga xamante ne ñoo gën a jàng ci HLM bi loolu bi ñu koy def pour lan la pour motiver ñi nga xamante ne ni bu ñuy jàng tamit seen jàng yeggul noonu pour déwén bu ñu gisee ñu jox xale yi nga xamante ne ren ay kado lañ déwén ñu mën a jàng donc balaa ñu leen di jox cadeau rek ñu bàyyi cadeau bi ak suñu mag parce que ñun tamit fii ci entre nous dañu am ay mag ay magu entre nous en l'occurrence euh, Modou Traoré ak Vieux Ndiaye bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fee ñoom ñu ibbi waxtaan bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax encore une fois ci seen teewaay aousubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay di jul nuyoo bi di ko teg ci ki nga xam ne tey jàppee nañ ko mooy imam Mouhamadul Amin Sarr di référence ci HLM di référence ci diiné ji di référence ci tarixa bi suñu sëriñ ñu ngi koy dalal bu baax diko xaar char te buñ ko nuyo nuyu nañ képp ko xamné rek aslam nga botu ci délégué de quartier wala mo xam kilifa aada nga ndax ñom ñoo jité yépp loolu la yalla dogal ndax ñoo fi wuuti yonent bi sallallahu alayhi wasallam. di dalal bu baax suñu gan gi Ibrahima gay ak délégation bi ngeen andal yépp ah, di di lu taxaway bi di wax ne mom euh sak la ci ñun waye lu reuy la ci ñun ndax euh, bu ngeen defé délégation euh, ñew ci ñi nga xamne dañuy sét xalé yi nga xamne nan lañuy def ba defaraat leen seen jang waye surtout seen jikko su ngeen and ak ko xamne day jëmmal jikko di imam di borom xam-xam di sunu soppe di sunu wulere loolu lu la ci ñun kon ñoo ngi leen di dalal jamm di leen wax bismillah di wax yi ngeen jog ñëw ngir wax ñu dégluñu yàlla na ko yàlla dafa yëw li ngeen ci séntu yàlla na ko yàlla sottil ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf. di leen expliquer rek ne leen contact ak euh, suñu kilifa gi ñu seet si tey nu mu demee contact boo xamante ne bu gaaw la dañ ko wax carrément expliquer na ko association bi lan mooy tànkam mu sawar ci loolu ci saa si ne balaa ay fan dinaa leen yónnee si délégation parce que yéen lii ngeen di def nii man ci loolu laay dox bugguma lu dul HLM jëm kanam donc ñun bu ñu gisee ñoo xamante ne loolu moo nekk seen i objectif ñun dañuy motiver ñu gën a gën a taxaw ci fi ñu taxaw ñu gën a liggéey li ñuy liggéey parce que nee nañ booy def dara nit ki di la ci jàppale day tax nga gën a sawar donc bi biñ ko waxee loolu noonu deful sax semaine ci la ñu wax carrément seen réunion bii di ñëw incha allah dinaa ñëw incha allah ba nga xam ne man lii ngeen di def nii dama cee bokk te dama dama cee bëgg a bokk te dama ciy bokk incha allah donc ñu rafetlu bu baax a baax a baax a baax kàddu yooyu mu ñu mu ñu mu ñu euh, sa jox di ñu dooleel wax dëgg fa yàlla te firndeel na ko tey ndax wax dëgg fa délégation bi bi ñu ko gisee suñu xol sedd na te li tax li mu ñu wax li gën a dalal suñu xel moom mooy fête bi daf ci am cër yu bëri parce que dañ ko ne ne nii imaam Mbacke Sarr la ñu sargalee bés bi parce que arbre de Noël pour xale yi la mais xale yi tamit il faut ñu won leen ay mag yoo xamante ne ci lañ war a roy te ñun gis nañ ne ni wax dëgg fa yàlla imam Mbacke Sarr booy wër booy compter ci ñu ñu war a roy HLM boo boo mënoo lim ñett te boole woo ko ci ñu seeti woon ko moom tamit mu disponible trop wax dëgg fa yàlla euh, recevoir ñu ñu ne ko yow lañ bëgg a sargal mu ne sax daf ñuy dimbale ñu ne ko déedéet yow mi ñuy sargal xanaa nga bàyyi ba déwén mais ren moom. ñun ñolay dimbalé <laughs> ñun ñolay sargal ñun ñoy def ci yow waaye nanguwuñu benn yoon yow ngay def ci si ñun té lool sax lañ ci wut dañoo bëgg woon xalé yi neleen leen mën nañ boole diine boole jàng te danga ci réussir donc amuñu exemple bu gëna reuy imam Mbacke sar donc ci biir événement bi dañuy sargal imam Mbacke sar dañuy sargal euh, Pape Jean Pierre sen am nañ ay parrain am nañ ay marraine wax deug fa yalla am suñu mag yo xamantene ñu suñu gannaaw même des fois buñu bëggul feeñ sax ñu ngi suñu gannaaw di jappalé di def lépp lo xamantene ne rek euh, lu war la pour ñu gën avancer donc di leen dalalat di leen remercier di leen wax né carrément wax deug fa yalla kontaan nañ trop trop trop trop ci affaire yi ni ngeen ko ni ngeen ko jappé waaw donc entre nous mu ngi ni équipe la bo xamantene composée de majorité de femmes <laughs> machallah yo xamantene ni.

ñun nag dañoo bëgg fi mu toll nii bu ñu neetee HLM ñu ne ah HLM de xale yee gën a mën a jàng ñoo nga HLM te ñun gis nañ ne par rapport ak 2021 ak léegi nii am na évolution bu rëy bu am parce que léegi nii dañuy romb si xale yi seen wax benn kàddu la mooy tataajuma maa jël pee te loolu fierté la ci ñun parce que xale boo xamante ne nee nga dig nga ko kado boo jàngee ñu jox la kado kooku dina bàyyi xel jàng bi bu baax a baax a baax foo ak jàng ñoo mais ñu wàññi fo bi gëna jox gëdd jang parce que jamono gi fi ñu tollu ni nit ki bo jangul rek wax dëgg fa yàlla day am lu bëri lo xam te day wàññeeku ci yow donc encore une fois ñu ngi leen di remercier. ñu fa Ibrahima Gay mu nek une personne bo xamanteni xam nañ ko hein, de par ses bienfaits yi muy def ci HLM man personnellement je l'ai je l'ai côtoyé ci ci affaire yu bari donc duñ togué fi di yox ci ay affaire am duñ fi jógee. Je remercie vraiment la euh, ponctualité parce que euh, comme nous président je suis une présidente euh, une semaine je ko contacté présidente comme nous contacté à l'espace d'une semaine suis une délégation pour une signer donc pragmatique Je ñu maa ngi bokk ci comité social maa ngi dalal ak som suñu gan yi maa ngi leen dalal ak jàmm di kontaan seen teewaay di wax ne tamit kontaan naa ci ñi ngeen ñëwee parce que ñi ngeen ñëwee nit ki ku mu yëg rek noonu nit ki maanaam nit bu yëgee ne ni mu la yëgee rek noonu la lay ñëwalee kontaan naa vraiment ci seen teewaay trop macha allah. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu

nekk Canada jamono yi ñu toll nii bi mu amee link bi ak yéen eh, par le biais de Oulimata Gueye moom Diop Gueye Oulimata ci la ñu woo waxtaan ak ñun bureau bi ci li nga xam ne moo ñu fa indi tey man mii di wax ak yéen maay Ababacar Seck man maay vice coordonnateur ADEPS topp ci Ibrahima Gueye eh, ma toog ak suñu secretaire général Babacar Ndiaye mooy le secrétaire général Youssoufa Sarr mooy le vice président chargé des affaires sociales et religieuses ah nganaar madame Faye mi di la trésorière de l'ADEPS euh, Adja Aïssatou Sar, di madame Gay, moom aussi duñ ko présenté kenn ndax mooy soxla si nga xam ne soxla monsieur Ibrahima Gay, and ak moom Moi ci mu am aussi ay tànk yu bari yu mu ci dox ci yu mel nii bu ñuy génn wala bu ñu link yi nga xam ne am nañ ko mu am taxawaay bu rafet boo xam da koy taxaw ci borom këram di ko jàppale guddi ak bëccëg ci li nga xam ngi di euh, di leen nuyu nag bu baax di wax ni bon

yàgg sonn ci doomu HLM yàgg sonn ci ndaw HLM bi mu amee bac nekk un physicien li mu njëkk wax mooy moom université ak ñàkk dem université day créer benn réceptacle boo xam ne xale yi koñom ak environnement yi ñu ci bari jàngal na leen di leen jàngal mathématique di leen jàngal science physique di rey boppam ci ñoom bi yàlla dogalee mu dem quelques années am ci sunu borom may ko ci wërsëgam mu jël wërsëg boobu nag commencé di ko boole ak xale yi waaye ci li mu njëkk nag mooy jigéen ñi moo tax sànq bi fi ñëwee maa ngi naan SG ma ne ko jigéen ñi tey fuñu ñu ëpp yaakaar war na fa parce que ñun adem suñu suñu force mooy les femmes ñun suñu force réalisation yu mës a def yëpp li Ibrahima Gueye def jigéen ñi la jigéen ñi ñoom ñooy njëkk ñooy nekk ci digg bi te ñoom ñooy mujj te loolu aussi dafay am sens ci nga xam ne ñooy jóg parce que léegi wax la présidente wax na ko léegi xoolee séance bi nee na jigéen ñooy fépp waaw mais c'est parce que yéen yéen a gën a am hmm, Pastef yéen a gën a am euh, ñàng ñàng bu ñàng bu xóot ci li nga xamne moy dal société bi ndax yene yar yene jur yene yar yene topoto yene def lepp donc ñun mom lu ñu mën rek moy xey joxe suñu as bo boole ci wax ju bari ah melni man bu ñu paree dem ci ñoon bëgg wax ju bari mais lepp lepp soxna la mo tax ñun aussi wax dëgg yàlla ñew bi ñew fi neex nañu trop parce que li aussi da fay bokk suñu activité parce que ñun ADEPS aussi ci loolu la ñu xam barki démb rek la semaine nationale de la petite enfance actuellement casier tout petit bi démb rek amna ay affaire yo xamni Ibrahima Gueye yónni woon ko fa ñu dem si euh, directeur euh, Daouda Cham, am loo xam ne jox nañ ko ko parce que depuis 2003 bi case des tout petit bi tijjee ba léegi ADEPS chaque année dina am lo xam dana ko warlo digganteem ak case des tout petit bi te lolu aussi def naa constance Ibrahima gay ci lolu bon pour ne pas voilà dawda cham fekk nañ ko fa donc pour vous dire que Ibrahima gay c'est c'est c'est l'homme sàmm nit la boo xam ne aussi comme may faral di wax tout le temps gis nañ ko ci langue politique gis nañ ko mu ut mairie mais loolu soxalu ko ñun soxaluñu ñun dañuy wax tout le temps rek que ni Ibrahima bi muy dugg ci politique dañ ko ciy dugal dugal ga mooy lan mooy ay nitam ak ay conseils ni ko ko comme que yaa ngi def loo xam ne maire mu koy def léegi est ce que mënoo jëm jéem a dugg jéem seet boo mënee am mairie bi budget bi nga xam ne day avoisiner les sept cent six cent millions te HLM ko.

say waa kër képp ko xam nekk na ci jafe-jafe nga jàppale ko ci loolu donc ñun ci loolu la ñu nekk ba démb barki démb aussi fa Awa Kayta sunu jigéen boobu nga xam yàlla na ko yàlla dolli wér bu baax xam ne elle doit subir une opération chirurgicale du cœur barki démb aussi Ibrahima gay dem na fa ba lépp lu ñu soxla woon ci opération bi Ibrahima Gaye joxe na lépp pour ñu war ko mën a évacuer war ko mën a opérer donc ñun ci loolu la ñuy dox donc dox boobu nag et je parle sa bonne dame qui est présente madame Gaye que ñun moom moo ñu gën a xam borom këram waaye tamit am na lu ñu jàngat ci moom mooy patience amni li jàngat ci moom mooy yar ak teggin amni li jàngat ci moom muy nit ko xamne xamna fimu jëm te xamna fimu tek tankam il n'est pas omnibulé nak par le poste d'un maire parce que mom nek maire ba nga nek maire ci am élection locale yi ñëw romb na Ibrahima il agit avant pendant et après les élections ah HLM nak dafa am tamit ben buntu bi fi am moy bu élection jotee rek kenn du kan moy kan mais il faut que population aussi à travers cette association bi je lance aussi un appel à la population des HLM ñu xam ne HLM ay doomu HLM dañu bax HLM ñi fi nekkoon ñëpp di jël seen doole di ko def ci HLM ay doomu HLM lañu te ku ci nekk du Ibrahima Gueye kese Copé Touré Cheikh Mbaye ñoom ñëpp ku ci nekk am nga loo xam yaa ngi koy yëkkati def ci mais il faut askan bi aussi ñu jéem capitaliser loolu ay doomu HLM jël seen alal di ko def ci HLM il faut que mu fay parce que tey ku ñëw tey jël sa alal def ko ci HLM dimbali xale yi dimbali ndaw ñi ñooñu war nañu gis seen bopp ci mairie bi mais tey malheureusement comme Sénégal HLM moom ni muy doxee rek mooy yaa ma neex rek mën nañu fal lool waaye mënuñoo fal

donc xalé bo boo leen di xol da ngay xamni ku investir ci ñoom investir ci magu ëllëg donc yeen li ngeen def ni ñun dañ leen ci bayyi du leen ci seetaan ñun leen ci wax suñu tànk tubéy danañ ci ànd ak yéen en amont comme en aval lepp lo xamni bëgg ngeen ko te yaakaar ngeen ko bu ci Ibrahima gay defee loxom mu dox ñun on est preneur defuñu ko da ngeen gisal caméra bi nak li tax may gënal a film bi du dara parce que ADEPS est érigé en ONG ONG la nek depuis un temps te ONG nag bo xasse ba nek dafa am lo xamni ay justificatif yo xamni gaay dañ la koy laaj dafa am benn cachet bo xamni

muy suñu imam muy une référence au-delà même de sa personne son père feu imam euh, Mouhamed Lamine Sarr li ngeen defal El euh, Hadj Mbacké Sarr deful leen ko mais imaam imam imam Lamine Sarr ngeen ko defar ndax imaam dund na ba faatu la mu defal HLM HLM mënu ko ko fay waaye nag HLM commencé na ko fay nànk ndax la ndax njabootam gi mu fi bàyyi.

ci barkeb Serigne Saliou mi nga xam ne ñun moom la yaakaar te xam nañ ne aussi la muy def ci ndaw ñi ak la ma waxoon ca waxam ju ja naan jox leen ma ndaw ñi la Serigne Touba daan def ci mag ñi ma def ko ci ndaw bu ma ko mënul sax ma barke loo ko waaye loolu waxin la wax la goo xam ne Serigne Saliou day faral di wax ne nit ñaari biir la ko yàlla dénk mooy sa biiru bopp ak sa biiru bàmmeel nee na sa biiru bopp bu mu la yitteel ndax yàlla bi la sàkk dana jox la mu la ci def waaye si biir bàmmeel na la na la yitteel te yéen li ngeen def nii mbiru biiru bàmmeel la ndax lépp lu ngeen defal xale yi incha allah xaw ma kañ la mu yéex mu yàgg suñu borom dana leen ko fay fa ngeen jëm te loolu aussi ñun lu ñu wóor la te xam nañ xale mumin la mu muminu yàlla nag loo ko defal yàlla nga ko defal defu leen ko waajur yi defu leen ko mais yàlla suñu borom ngeen jàppale ci xale yi xale ku leen xool xam ne baax nañu ci ay mag yu baax la ñu jóge donc la gi des mooy entre bi gën ko yaatal suñu borom gën leen jappalé gën gën ko étal mu baye yam nak ci ruq bii waaw ñun on on on rêve de voir entre nous sur toute la commune de la population de la cité des eaux ba Angle Mousse ñu gis fa ay ay cellule entre nous parce que aussi man je pense que c'est la seule association bo xamné man de sentir nani ñom ñoom leen jappalé ñu dem li fi des si folklore wax nga ko légui HLM dañu dépasser folklore folklore yóbbuwul nit ci dara ku mës a bëgg fecc bés dana jot say tank dana metti nga tok doto fecc ku mës way bés dana jot sa baat bi dana xuur comme sama baat doto dootoo way waaye li am solo ba am solo moy jaamu yalla ci bir jaamu yalla yi moy li ngeen def nii donc ñun aussi ñu ngi leen ci remercier bu baax au nom de de de de Ibrahima Gueye ak au nom aussi des des membres du bureau qui sont ici présents di wax yalla aussi yalla na yalla defal jam ak sutura di jox suma secrétaire général Babacar Ndiaye mu xaw brosse tuuti ci li nga xamne mom mo ngi tege tay nga xamne ne aussi

ndax momit aussi li ma koy waxee tout le temps rek fekk nañ ko kërëm ak Ibrahima Gueye mais ben wax bi moko mësa mës a jàpp kër gi bi ñu demee këram waxu dëgg ku bëgg HLM a ngi nii koo xam ñun xam nañ ko du tay donc amna lo xamni xam ni bu ñu naxante ñi bëgg HLM xam nañ leen nekk leen dans votre petit coin di gérer di def li ngeen def mais suñu borom dana ñëw laaji bës dana jot mbir mi dana téggu seeni loxo ngeen jël ko doxalé ko comme ni ngeen ko bëggee parce que aussi loolu la bëgg on veut que nos centimes que nos francs que nos millions que nos milliards yu jugee ci mairie bi du dugg ci mairie bi HLM gis ci boppam population gis ci boppam ndaw ñi jigéen ñi surtout gis seen bopp ci loolu parce que on est à quelques encablures d'une élection boo xam ne lu ne di ngeen ko fi gis mais nañu ànd ak suñu ngor te xam ne yàlla jeexul te ñun HLM suñu bopp la bu ëllëgee lu fi mënti amit dinañu laaj ku ci nekk ba ngay dund sa réew wala sa goñ wala sa gox lan nga fa defoon waaye yéen yaakaar naa ne bu kere ko yàlla bu leen laajee di am tontu gi tontu gi mooy ba ñu nekkee sama gox xale gis nañ ñu bëgg a naax saa ñu dimbali ndaw nekk ay mag ñu baax salaamualeykum wa rahmatullah waaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm ci dalal bi nga xam ne moom ngeen ñu dalal donc di di ko rafetlu bu baax a baax donc ñu nag euh, je pense que li ñu waroon wax li ci bëri sëñ Babacar wax na ko je pense que li si des mooy euh, wax rek li nga xam ne moom mooy gën a essentiel ci wax ji euh, tey nag bu ñu fi ñëwee bi ngeen di présenté wu dañu dégg ngeen tudd ay tour ak ay nit yoo xam ne dañu am solo ci suñu carrière ñun ci suñu vie professionnelle mais également ci suñu dundinu bopp Euh, ku ci mel ni imam Mbacke Sarr euh, ku ci mel ni Jean Pierre Sène bi ngay wax bokk na si ay jamono 2016 2017 bi ma koy xam maa nga xamee sama bureau SNHLM mu ñëwoon SNHLM ma ko doon liggéeyal ci benn dossier bi ñu paree mu am ay conseils yu am solo yu mu ma joxoon je pense mu ngi dëkk fii ci angle bi voilà conseil yoo xam ne bi ma ko toppee ak léegi gis naa si njëriñ bu am solo donc may kontaan lool lool si turam li mu fi jibee di ko ñaanal yàlla guddal fanam yokk ko wér Euh, di grand Ladi Ndoye moom aussi mu nekk nit koo xam ne lépp lu ñu sumb HLM boo fa demee dama ko fay fekk donc mu nekk koo xam ne HLM rek moo ko ñor donc bu ñu ko fekkee fii aussi suñu xel dafay dal ki nga xam ne moom ngeen bëgg a sargal mi imam Mbacké Sarr euh, li ngeen di def nii di jox ndaw ñi ay prix je pense que moom si boppam euh, war na ñu jox ko prix ndaxte imam la ci wàllum diine mais également cardiologue la de métier. te xam ngeen ni métier boobu di médecine képp koo xam ne moom moo koy def dafa war a fe bokk ci élite yi donc kon moom ci ñi ñu war a jox prix la bokk ndax ci élite yi la bokk bari na ay nit yu bëri yu feebar ci biir commune bi danañuy jàppale gratuitement ci clinique bi nga xam ne moom la yor donc mu nekk nit koo xam ne day jaamu yàlla si jaamu yàlla yi donc di def lu am solo ci biir commune bi tey kontaan nañu lool si bi ngeen ko tuddee bés bi waaye Ibrahima Alioune Gaye bi nga xam ne moom moo ñu fi indi moom moo ñu fi yónni moo nekk président ADEPS ADEPS nag dafa nekk alliance pour le développement l'entraide et la promotion sociale pour le Sénégal mu nekk ben ben structure boo xam ne dafa yàgg nekk ci ay actions de développement donc ni Babacar waxee léegi ci aspect politique bi man damay ñëw surtout ci homme de culture homme de développement bi nga xam ne moom la Ibrahima Gueye doon euh, di jàppale mbir yi nit ñi di jàppale commune bi ci aspect bu nekk ci euh, boo demee ci poste de santé bi boo demee ci école bi ak euh, boo demee ci jigéen ci ci formation yi ci financement yi donc ñu yag a ku yag a jigen ñi la ci aspect yooyu ku yag a HLM la waye tay bi mu gisee li ngeen xam mom ngeen sabab muy entournou bi dafa jàpp ne entournou yëfu ñep la te mom ci la bok motax euh facilement si la ñu déggoo mu ne dinañu fi yoni ñu nuyo ci waxtaan ni nuyo ci bi nuyo ci nak bokul ak li nga xam mom bu ñëwé war nako mëna def ci entournou bi parce que beaucoup na ci li nga xamné doon nañ ko fi def ba ministre de l'éducation nationale muy Serigne Mbaye Thiam bu ñëk ba mu envoyé ñu lettre de félicitation mu ne ñu bu ubbi tay jàng une réalité au Sénégal HLM mom moko waral té grâce à ADEPS té école bu daan ji dañuy nettoyer école yépp désherber désinfecter ba paré jox directeur d'école yi ay ordinateur portable donc luñ mëna vérifier la jox leen ay rames papier yu ñu mëna préparer élèves yi ay exercices pour bu ñu ubbee rek ñu mëna commencer jang donc bok na ci lettre de félicitation yoo xam ñun jotoon nañ ko loolu nag day firndel que ni enseignant bi nga doon ak idée bi nga xamné mom ngeenu mom ngeen lancé dafay dugg ci li nga xamné moy suñu activité socio éducative yi nga xamné ñom ak social et éducative bi nga xamné mom lañu yag di def ci biir donc ñun ak yéen dañoo bok ay dañoo am ay points communs mais également dafa am yu bari yo xamné dañu ko bok moo tax bu ñu gisee ni ngeen di doxalee mënuñu ñàkk ñëw tey boo leen ñu ko yëgalul woon sax ñu yëgee ko ci mbedd bi ne am na lu fi taxaw lu sosu ñu war ko mën a primer élèves yi nga xam ne ñoo gën a am ay notes yu baax wala dàq jàng ci biir commune bi ñun dañu siy ñëw te dañu siy bokk ni Ibrahima Gaye ñëwee certainement Babacar dina ñëw keneen ak keneen dina ñëw de façon individuelle waaye te dañoo ñëw si délégation ADEPS pour wane li leen ne ñun ànd nañ ak yéen épouser nañ idée bi nga xam ne moom ngeen di def te ñu ngi seen ginnaaw bala ñu soxlaa ci wàllum doole ñu ñëw ànd ak yéen ci liggéey bi boo la ñu soxlaa ci wàllu matériel ñu ñëw ànd yéen ci liggéey bi mais boo la ñu soxlaa ci wàllum koppar lu mën a décanter situation bi li ñu yàlla wërsëgalee dinañ ko bokk ak yéen pour ñu mën a continuer li nga xam ne mooy mbir yi donc euh, loolu mënuñ ko si woon ñàkk sànni moo tax ñu ànd ak euh, suñu trésorière bi ngenaar ak euh, suñu umpaañ bii nga xam ne mooy asusaar nekk di jàppale Ibrahima Gaye nekk conseiller aussi di ko jàppale ci liggéey bi nga xam ne moom la nekk di def depuis boobu mu am ci waar bu am solo boo xam ne mu ngi ko ciy bay moom na jigen la bo xamné ci intellectuel yoy noonu ndaw ñi nga xamné mom lañuy sargal buñu maggé intellectuel yi ñu wara doon mom ci ndaw ñoñu la doon dafa boole ñaar yi nga xamné mom mo am dafa nek deretu imam Lamine sar euh am lu bari lo xamné ne mokkal na ci diiné mais également nek intellectuel bo xamné fa la ci sikap liggéey ba nga xamné mo mu ngi koy liggéey foofu ñun tek nañ ci suñu bët te xam nañu lan la si sama chamoñ ma ngi dajé imam Youssou mi nga xamné banquier la de profession

ba pare di terminer ci li nga xamné mom moom la suñ Babacar wax légui di wax né ADEPS dafa dem ci phase ONG. ONG bi nga xamné mom la doon dafa am ay activités yo xamné ne partenaire peut-être yi nga xamné ñom lañuy la liggéeyal dañuy soxla yenn image yi pour wane ni ah ñun kat demande yi nga xamné ñu ngi leen koy laaj pour dimbalé ko HLM xam nañ fan lañ koy duggal donc parce que am na ay activités yu bari ñu ngi ci participer te kenn wuñu du mairie du état du ben institution bu ñu dimbali te bépp bi ADEPS soso depuis 2015 ba légui ci si ressources ressource bob ak ressource Ibrahima Gaye ci donc lool nak buñu bëggé dimbali HLM il faut que ñu dem ci benen échelon bo xamné ci lañuy taxaw ñu transformer changer de statut joggé ci alliance bi pour pour dem ben ONG bo xamné da fay gëna ci walum financement wu jigen ni ci formation wu ci dimbali mais également ci euh, yi sport culture ci religion donc lool moo tax. ñu indi euh, suñu suñu xarit bi mu mën a filmé waale lii mais également lii nii nekk image boo xam ne àdduna yëpp dinañ ko jot pour wane ni non seulement ADEPS alliance la bu juddu bu yàgg fii mais également am na beneen judd beneen structure boo xam ne juddu na bu tudd entre nous boole ay góor ak ay jigéen ci fépp foo xam ne ci biir HLM la 1 ba 6 ñu mën a fexe dimbali tout tànk yi nga xam ne ñoom ñooy avenir réew mi mais également dimbali tout tànk yi nga xam ne demee ñoom ñooy. future génération bi war a diriger HLM te boobaa ñun dinañ nekk mag te bëgg nañ bu ñu nekk mag ñu am ndaw ñoo xam ne dinañ mën a doxal HLM comme ñun nañu ko bëggee donc loolu nag ci ngeen nekk ñu ngi leen ciy félicité bu baax a baax di wax ni ñun daal ubbeeku nañ jox nañ leen suñu loxo te saa yu nekk boo la ñu woowee ci liggéeyu terrain bi ñu ngi ci wala ñu wooyee ci ay matériels yu ñu yor ñu ñëw jox leen ko mais boo leen amee ay koppar yoo xam ne soxla ngeen ko te ñun ñu am ko dinañ fexe ba jotale leen ko ñu mën a yeggale liggéey bi nga xam ne moom ngeen sumb mu nekk liggéeyu entre nous ak liggéeyu ADEPS waaye liggéeyu HLM lay doon ngir njëriñu HLM. maa leen di jaajëfal bu baax di yemale kàddu gi foofu di joxe imaam Youssou bi nga xam ne d'habitude fu ñu dem rek moom moo daan ubbi ak ay ñaan ñu ngi siy tuub sax imaam waaye ñu ngi lay waxtaan bi moom moo xawoon neex rek.

di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dëgëral leen sàmm leen ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax mbir la mo xamantene yombul dëkk ci gox ba nopi dajale ay nit ngir intérêt achlam ngir intérêt gox bi loolu yombul wa tabaarakallaahu kon dañ leen di ñaanal yàlla yàlla jàppale leen euh benen bi ci dess moy ñi nga xamantene ñom ñoom ngeen jël ngir sargale leen bés bi ñu nek ay référence kenn ki di alxaaji Mbacke Sarr di sama mag xam naa man munu ma munu ma munu wax ci moom munu ko sedd matuma ko seede ndax mag moom ma bokk benn bàyyi kenn ki des di Jean Pierre Sène nekkoon nit koo xamante ne euh, wóllëre imaam Mouhamadou Lamine Sarr la ñu nekk nag ñoom ñaar ay référence li ma ci mën a wax rek mooy euh, def ngeen lu rafet parce que ndaw li muy gën a soxla mooy mooy référence boo amee référence dina mën a jël tànkam teg ko ci yoon boo xamante ne amaana bu ko bu ko toppee dina ko mën a yóbbu fi nga xamante ne mooy fi gën kon dañ leen di ñaanal yàlla subhaanahu wa taala mu defal leen mu sàmm leen sutural leen aar leen ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ma ci naroon wax yëpp sama sang yi wax nañ ko kon xanaa ñun dañuy féetoo wàllu ñaan gi rek ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu dollee sàmm ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal nu fathu defal nu nasr defal nu shifa muy ubbeeku ak ndimbal ak wér ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon xana fofu lañu yemale kàddu yi